bu mom xamul ku jël téléphone mi mu dem porter plainte ni la demee donc té loolu dama ci balu ak bu baax baax di ko ak mom mi tok sama kanam balu nako ak mère makoy balu wat ak parce que man ma tooñ mm-hmm. comprendre nga té li tax ma def ko euh wu beut nekul nit nekul dama bon nekul euh, benen intention la ci amul mm-hmm. dama nek ak mom, gis muy wax nga xale jigéen yoo xamante du dara nak ay fansam lañ comme nim ko waxé donc ma fiir motax ma jël téléphone te aw ma woon intention lii nii yëpp lii nii yëpp ak li mu jur nii su ma xamoon lii lay jur kon du ma jege téléphone am du ma ko laal. bon laaj bi ma bëgg a laaj balaa may delluwaat ci Bril parce que bëgg naa ñu wax euh, ci yeneen point d'interrogation yi nga xam ne sénégalais yi doon nañ ko càpp taxaw di ci xaar wala doon na def bruit euh, ci ci yéen a dëkkoon ensemble li tubaab di wooyee concubinage Dieyna <laughs> euh, <laughs> dafa déplacé woon ñëw ci apartement boobu ñu ñu doon wax ne da mm. koy fay te nga leeral ko léegi yéen a fa dëkkoon ensemble dinaa ci ñëwaat yow mi indi ci leeral mais ci biir li nga gis ci téléphone bi daf ci am loo xamante ne nii moom la sénégalais yi doon ëpp lu ñuy wax ay vidéo euh, ngeen baal ma ci kàddu yi ay sextape yoo xam ne Bril la ak beneen jigéen muy Marichou Euh, mu doon loo xamante ni bi mu génnee sénégalais yëpp dañoo choqué euh, nekk teg ko ci tuumay doomu jàmbur dëgg la du dëgg est-ce que yow dafa am ay vidéo yoo doon gis entre Marichou ak Bril ay vidéo yu jéggi dayoo wala sextape yoo doon menacé Bril est-ce que dafa am. non loolu amul man dugguma ci galeereem bay xool ay vidéo yu mu am wala yu mu amul comprendre nga te Marichou ay relation yu bien lañu am duñu ay noonu. donc problème bi du problème Marichou problème fiiraange la jël na téléphone am xol xol après nit ñi nak ño nek di wax lu leen neex. parce que xeyna mom ak Marichou nekkon na comprendre nga lool passé am la. dañuy ñew parce que nit ñi bu amé problème bu problème amé duñu jema comprendre. ñom dañ leen di yobale rek ñuy dem. donc man Marichou du sama non du sama ennemi. ok kon rumeur yi doon wax ne. dafa am ay vidéo yu Bril andak ak Marichou. yoo yor doon ko menacer Bril. continue déjà déjà moom mosuma menacé tamit loolu pour mu leer quoi mosuma menacé gis naa ñu ne daf ma menacé di ma laaj xaalis di ma laaj mosuma menacé kenn mosuma mena mosuma menacé ne ma. pour pourtant ñun li ñu dégg li ñu jot. Mm. Euh, ci xibaar yoo xamante ni da leen a jege yéen ñaar ñëpp. Mm. Mm. mooy que daf la doon menacé. menaces yooyu ñoo def ba non mosuma menacé te ay vidéo la la doon menacé. non mosuma menacé xam nga tey. xam nga tey dama def benn benn benn scénario bu ndaw xam ay rey sax lay def. comme que moom yor na sama portable et que dugg na gis message yi pour mu won ma ne gis na message xam mu ñëw directement ne gis na message parce que boobaat naa xam ne moo yor portable bi mhm. donc jaar xam naa waxtaan nag peut-être xaritam wala dara ñu jël portable bi xam nga def comme si que ni ki jël portable bi ki yore portable bi moom moo ko yónnee